ñaar réew mi ci seen loxo la nekk ñii fi ne mësuñu leen dig lu ñu def et tey je suis à l'aise d'en parler ci benn émission ak Pape dama ne leen Sonko jënd na glace ci français français ba génn na ci tey dégg ngeen secrétaire général gouvernement lu mu wax le franc CFA est à améliorer jënd nañ glace jënd nañ ci xam nga dafa ay wax yoo xam ne comprendre mais man jàpp naa ne ay waxi dof la projection croissance ñaata lañ ñu wax 6 point 5 la ñu projeté croissance xam nga Sénégal kañ la weesu 6 point 5 2014 lañ ko weesu ñoom ñuy def projection de croissance di ko yóbbu de 6 point 5 ñii delloo ñu ginnaaw la bëgg ñuy lekk xeer ñii dañoo bëgg a toroxal ñii dañoo bëgg a toroxal Sénégalais maintenant nag li ci des c'est à votre niveau li ci des mooy yéen ñi nekk ci secteur informel nous avons trois millions cinq cent mille entreprises individuelles trois millions cinq cent mille entreprise individuelles bu ñu amoon gouvernement yu smart ay gouvernement yu intelligent génn nañ ci dégg naa leen ci biir document bi ñuy wax transformation li des daal mooy jël programme bu tekki rek ne léegi comme amuñu projet programme bu tekkee ngi nii def nañ ko projet parce que nag liggéey la koo xam ne dañ ko def ak ay nit ñoo xam ne ñu bëgg réew mi la ñu wër réew mi parcourir six cent quarante mille kilomètres ci biir Sénégal ay équipe yu bari liggéey ci liggéey bu mucc ay bu amee ñeneen ñuy rocci suñu xalaat di ko jëfandikoo si c'est pour le bien du pays alhamdulilah man xam naa ne bëgg na man xam naa ne ko bëgg na mais man biir na ma ne Sonko am na yéen mais mais doom day mën en tout cas lii laa jàppoon ne war naa ko waxtaan ak yéen ci la vision Sénégal 2050 il faut ñoom ñu yore réew mi ñu xam ne réew du ñu ci kaw ñoo koy defar réew ci suuf lañ koy defar et réew boo koy defar ci suuf da ngay ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy créateur de richesse ñi nga xam ne ñooy créer ay entreprise ñi nga xam ne ñooy liggéeyloo ay doomu aadama ñi nga xam ne ñoo am xam-xam pour def création de richesse ñooñu ngay àndandoon encadrer leen pour que ñu mën a defar Sénégal yàlla xam na ne am nañu ay nit ñu am xam-xam am nañu ay nit ñu am yéene ci réew waaye dafa fekk ne ku ñu boolewul ci mbir ku ñu woowul ci ngénte boo fa demee boo tojee kaas di nga fay maa ngi ñaan yàlla yàlla sàmm senegal di ñaan yàlla yàlla dimbali ñu te leen wax rek ne xam naa ne fi mu nekk nii waxoon naa leen moom mi jiite réew mi Ousmane Sonko dafa am ay journaliste am yu koy fenal moom Ousmane Sonko. dafa am ay agence de communication di ay maison de presse yu nekk ci réew moom Ousmane Sonko dafa am ay influenceurs yoo xam ne ci ñi wax muy dox lañu ñu bokk biir na ma ne bu suba ku ci nekk dana ratax laaru tàmbali di wax ci Bougane mais dama bëgg ñu xam ne loolu defuma tarafatal ay plus ngeen di gën di wax ci man plus ma gën di leen a sonk plus ngeen di gën di fen plus may gën di génn di leeral tey jii woo ngeen réew mi cib naje bu ngeen ko defee bu jeexee 15 heures bu 17 heures ma woote bu ngeen ko defee 20 heures bu jeexee 20 heures bu 22 heures ma woote mais bii moom xam naa dama leen njuuy parce que bële dañu programmé 10 heures. ma def 17 heures ñu ne ñoom dañuy def 16 heures ma def 19 mais bii dama leen bàyyi ba ñu lancé seen invitation ba tey ci suba ma daal di wax sénégalais yi ne la ñu wax foofu ci ay contre vérité la ñu wax foofu ci tuur lëndëm la ñu wax foofu ci dóor marto la ñu wax foofu ngir nax sénégalais yi parce que bari na ci ñoo xam ne ay fasu kayit lañu fu ñu fu ñu yàgg rek ngelawalee faw bari na ci ñoo xam ne lu ñëw yóbbu leen et ñooñu la ñuy waxal suma benn xarit économiste sànq dama ma wax ne mi ñu amal jam ñaajo tey c'est pas pour les intellectuels et je voudrais saluer élément 4 bu Leg Africa s'il une intervention pertinente s'il y a une intervention qui a véritablement retenu mon attention de par sa pertinence du fait de ces analyses pointues, c'est l'intervention de Eliman Khan bu Leg Africa li mu wax li mu wax Diomaye j'espère que Diomaye dina ci bàyyi xel et seetloo ba muy wax waxu la keneen de Diomaye la doon wax lam ko wax wax ju nit mun a bàyyi xel mooy ne ay nit boo leen di defal plan da ngay ànd ñoom déglu leen ba xam seen soxla hmm. waaye doo jël plan jël ay nit ñu karawaatu dugg ci roq génne ab plan ne plan bii mooy doxal Sénégal liy doxal Sénégal lu ñuy mànkoo lay doon luy doxal Sénégal lu ñuy déggoo lay doon luy doxal Sénégal lu kilifa diine yi di ñaan lay doon luy doxal Sénégal day jël en considération mag ñi ndaw ñi jigéen ñi ñëpp ñi nga xam ne ay forces vives de la nation lañu forces vives yooyu ñu ngi leen di woo pour le 17 incha allah la coalition sàmm sa kàddu amenée par Pape Djibril Fall par Thierno Bocoum par Anta Babacar par le PUR par Déthié par Barthélémy Dias li nga xam ne moom mooy suñu tête de gis ngeen ko fi léegi ci ay liggéey yu ñu nekkoon c'est juste pour dire ce bloc générationnel taxaw nañu pour soppi Sénégal kon yéen waa Sénégal yéen a ci des élection yi takk leen seen ndigg campagne bi na ngeen génn na ngeen wax ak nit ñi waxtaan leen nit ñi wax nañ leen ñu génn voté massivement pour la coalition Sàmm Sa maa ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf